الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أين بكو جلدي ñi ngi màggal suñu boroom màggal gu tege ci kaw yu màggal màggal bu amul fenn fu mu yem màggal bu amul benn dayo ñi ngi koy sant di ko gërëm ñi ngi koy sukkandikoo ca di seede ne moom dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ay yéen mbokk julit ñi ngi daje tey ngir sant suñu boroom suñu boroom booba nga xam ne moo ñu yombalal yoonu jaamu suñu borom bi nga xam ne moo ñuy wërsëgal feet guy dellu si ci ñun suñu borom bi nga xam ne moo ñu ubbil ay bunti xéewal ngiree yokk suñuy tuyaaba ngiree jéggal ñu suñuy bakkaar sotti ci ñun yërmandeem moom dong yeyoo ñu koy sant moom dong yeyoo ñu koy gërëm ñu ngi seede ne kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul moom amul kum bokkaaleeg lenn ci nguuram gi wala lenn ci jaamu googe kaddu googu di laa ilaha illa allah képp koo xam ne nii dund na ko képp koo xam ne deeyaale na ko yóbbu na yowm alqiyaama benn visa visa boo xam ne dana ko yóbbu directement aljanna yàlla yàlla boole ñu ca waaye képp ku dikkal sa boroom yowm alqiyaama fekk yaa ngi doon dund leneen lu dul laa ilaha illa allah ca mooy yàlla dong yooyu ñu jaama ko xamal ne yow yaa ngi dajeeg moom fekk mi ngi la rëbb mi ngi lay yóbbu ci kërug sawara ga nga seede ne yonent yàlla muhammad ab jaamam la yeyoowul ñu koy jaamu waaye yonent yàlla la yeyoowul ñuy juyoog moom yonent yàlla muhammad jaamu yàlla la kenn du ko jaamu yonent yàlla la kenn du wurte juyoog moom lu mu digle dañ ko war a def lu mu tere dañ ko war a bàyyi waruñoo jaamoo yàlla lu dul la mu santaane moom la yàlla yëkkati def ko suñu sang def ko suñu royukaay yowmal qiyaama mooy taxaw ci kanamu yàlla ñaan yàlla mu ramm ay jaamam moom la yàlla jagleel alkawsar déeg bu mag boobee ci firdawsil aala sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ila yawmi din gannaaw loolu mbokk julit sant leen seen borom jalla wa ala ci xéewal gim ñu defal ñu jeexal shahru ramadan su ko neexoon ay jaamam lañu ni mu farataalee julli juróom bés bu nekk ñu julli ko daf naan ay yéen jullit ñi seen dund yépp na ne ko koor mu xaraam ci jullit bi lekk ci bëccëg abadan te loolu it doon na métti waaye ñu gëm dañ ko def waaye suñu borom defu ko juróomi weer defu ko ñett xanaa benn dong la ko def kon bu ñu yàlla wërsëgalee ñu pare ci loolu war nañ koo sant waaye itamit ñaan yàlla mu nangul ñu ay yow julit xamal ne sa jëf lu mu màgg màgg lu mu rafet rafet fokk mu ànd ak ngëneel yàlla ngiree yàlla nangu ko looloo tax ñu war a daje fii ngir loolu waaye ñu ngi daje fii it ngir bakkaar yi nga xamee ne nii indi woon nañ ko mu ànd ak ramadan wala lu jiitu ramadan ngiree suñuy borom baal ñu ko ci bis bi nga xam ne moo ko tëral muy ab iit bum jagleel la nga xam ne mooy ni ci lislaam ay yéen mbokk julit ngalawaay na ngeen xamee ne nii lay ngëneel bu julit di war a bégee di war a kontaan mooy kontaan boo xam ne yàlla ci joxe ndigal bépp façon daje bu ay doomu aadama yi daje di ca wane ay mbégte di ca wane ay kat ay kontaante ca dul yàlla joxe ndigal mbokk loolu ay gént la rek yoo xam ne nii du am bopp du am njëriñ du la amul benn njëriñ àllaaxira amma suñu daje tey bii dajale bu yàlla joxe ndigal dajale bu yàlla gërëm loolu tax suñu borom ne ngalla waay ngir ngëneel yi leen yàlla ubbil ak yërmaande ngi leen yàlla ubbil jullit ñi yem leen di bége loolu ca xam leen moo gën leneen du dul loolu loolu tax jullit yow lii mooy sa feet ba ko ñaareel mooy tabaski beneen feet bu ñu mën a créé ci kaw suuf na doon ahlul kitaab chrétien yaa ko créé wala jullit ñi ñoo ko sos di ca dajale ay mbooloo di ca yàq ay milliards di ca rey ay lu kenn xamul ci nag loolu lépp mbokk julli nañu xam ne suñu borom yàlla joxewu ci ndigal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba muy ñëw madina fekkoon na leen ñu amoon ñaari bi si daje di ca daje di feet yonent bi na bàyyi leen ko yàlla wuutal na leen lu gën ca mooy tabaski ak korité ñaari daje yu màgg yooyu moo war a doy julit ñaari daje yu màgg yooyu moo war a bégloo julit benn doo ko ñetteel mooy dajab ajjuma ba nga xam ne mu moom semaine semaine bu nekk mu daal di am ay yéen mbokk julit ngalla waay ñi ngi màggal suñu boroom ñi ngi koy màggal gën jaa màggi màggal ñi ngi koy màggal waaye ñi ngi koy sant ndax moo ñu ko sant ci bis bu mel nii mu ne yombal naa koor gi ngiree ngeen mën a teel a matal dig bi ngiree ngeen di mën a sant seen borom subhanahu subhanahu wa taala te la nga xamee ni nii jubal na leen ci ci lislaam ay yéen mbokk julit xam leen ni bisu idde yi jubluwaay ba nekkul woon sol yére yu taaru donte ne ne yàlla joxe na ci ndigal jubluwaay ba nekkul woon lekk-lekk yu neex donte ne yàlla joxe na ci ndigal jubluwaay ba nekkul woon ku ne kontaan ku ne ree donte ne ne yàlla joxe na ci ndigal waaye xam leen na lay gën a mbokk jubluwaay ci bisu iid mooy nga bokk ci ñi yàlla jéggal ca yërëm leen yàlla yàlla boole ñu ca ñi nga xam ne ñoo texe ci bisu iit mooy ñi nga xam ne sellal nañ seen bakkan ci tuub bu sell seen diggante ak seen borom ci laabal seen xol génne la nga xam ne mooy seen murum koor jóge fa dem ca la nga xamee ne ne mooy jullikaay ba ay yéen bokk julit xam leen ne day suñu borom yàlla wàcceel nañu ay yére yoo xam ne dana muur suñuy awra waaye xam leen ne yére ba gën a màgg yére ba gën a sell mooy yére ragal yàlla yére ragal yàlla mooy yére bi gën a màgg bu julit di woddoo ci àdduna di ko woddoo ci alaxira mooy li nga xam ne boo àndeek moom suñu borom yàlla dana la teggil tiis ak njàqare lépp loo xam ne ni yaa nga ca suñu borom yàlla dana ko woye fan ubbil la cay bunt alaxira nag fa la mbir ma di gën a mate looloo tax ba nga la waay yéen mbokk julit sax leen di sant yàlla ci xam leen ne xéewal gi gën a rëy gu yàllay wàcce ci kaw suuf mbokk du ay milliard mbokk du pouvoir xéewal gi gën a rëy mooy xéewalu lislaam bu la yàlla boolee ca ñooñee jàppal sa bopp na bokk naa ci ñi yàlla gën a xéewal ci kaw suuf même bu ma doon fanaan ci néegu ñax même bu ma doon lekk ay mbiski ay mbiskite ki sombi loolu nag moo tax ngeen war koo sàmm lu raw ni milliardaires yi di sàmme seen alal lu raw ni politiciens yi di sàmm seen pouvoir islam na leen gënal lu nekk taxaw leen ci l'islam boobee loolu dong mbokk mooy tax ngeen mën a texe islam nag mbokk julit xam leen ne dafa aju ci ay ponk ponk yu ci gën a màgg mooy saxal la ilaha illallah muhammad rasulullah waaye taxawal julli juróom koo xam ni du julli du jullit koo xam ni day sàgg ne jullil sawara la ko jëme suñu borom mu ne alkaa nga ñeel na ñuy julli di ko sàggane li leen yàlla wërsëgal ci alal dee leen ko xool na mu toll ngeen génne zakat ba ca xam ne moomu leen ko yàlla da leen ko joxloo ña nga xam ne mooy seen borom bu weeru koor jotee woor leen ku nekk ci ñun na waajal programme bu ko yóbbu makka lii mbokk moom mooy ponk l'islam gannaaw loolu nag islam bari na ay farata islam bari na ay sunna loolee julit góor ak jigéen daa war a sax di ko jàng fu mu mën a toll loolee di ca yokk lépp lu mu xam mu jëfe lépp lu mu xam xaraam na mu daal di bàyyi nga la waay yéen bokk julit na ngeen góorgóorlu jéem a tàbbal ci seen xol yi lépp loo xamee ni nii day jur mbëggeel day jur cofeel ca xam ne kat bokk bi su it am na ñaari jubluwaay yu màgg benn jubluwaay bi mooy jublu ci suñu borom ngir jege ko beneen jubluwaay bi mooy julit ñi jegeente ci seen biir balante ak yërëmante defalante teraanga moo tax suñu borom farataal balaa kenn na ñëw ci it bi na jël sarax daal di koy jagleel ña nga xam ne dañoo néew doole ngiree di bis boo xam ne ñépp a ci ànd bëggante soppante loolu nag mbokk rafet na ci jëf yi waaye ci xol ba lay jëkkee julit nga la waay bëggal sa mbokk julit xamal ne yow bul nangu kenn gën la waaye xamal ne gënoo kenn suufeel ci kanamu nit ñi ak lu la yàlla may ci alal ak lu la yàlla may ci nguur ak lu la yàlla may ci xam-xam nga la waaye góorgóorlu leen ci loolu waaye it góorgóorlu ci xool la nga xam ne yàlla teg na ko seen loxo alal ji moomu leen ko xool leen fa neex yàlla ngeen def ko fa njaboot gi moomu leen ko yàlla da leen koo dénk xool leen njaboot gi soxna yeeg doom yi sàmm leen ba ñuy sutural seen awra sàmm leen ba ñuy taxawal la nga xam ne ñun mooy seen julli sàmm leen ba ak jaxasoo góor ak jigéen di bëri ci ñoom képp ci ñun koo xam ne yaa ngi jëflanteeg sa morom nga la waaye jublul jëriñ ko ca loolee bul jublu nax ko yow commerçant bul nax client yow client bul jéem a nax commerçant moytu leen tooñ ak bépp façon tooñ tooñ day day jur ay lëndëm yawmal qiyaama bokk na ci tooñ lekk riba bokk na ci tooñ lekk ay nger bokk na ci tooñ mooy jël alal yu nit ñi ci dullal seen tey yu bakkan na doon bor la yoo fayul wala alal joo xam ne ni dañ koo doon lu ñu sàcc nga la waay yéen ñëpp jóg leen taxaw di digle lu baax di teru lu bon sunu xeet bi loolu la ko yàlla taggee nee na mboolem xeet yi mas a jaar ci kaw suuf yi ni ci gën ndax yéen da ngeen di déglu lu baax da ngeen di tere lu bon te da ngeen a doon ñoo xam ne da ngeen a gëm yàlla yonent bi alayhi salaam ne képp koo xam ne góor la wala jigéen gis na lu bon na jóg dindi ko ak loxoom bu ko munta dindi ak loxoom na jóg wax ca ba mu deñ su ca munta wax ba mu deñ na doon koo xamee ni ni da koy naqarlu ci xolam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi waat ci ki nga xam ne suma bakkan mi ngi ci loxoom da ngeen sax di digle lu baax di tere lu bon wala suñu borom yàlla dana indi mbugal boole leen ko ñu baax ñi ci yéen bu ñaane yàlla du ko nangu loolee kon mbokk musiba la góorgóorlu leen mooy seen borom wóolu seen borom dayloo seen borom bu leen ko bokkaale kenn kii jàpp ci yàlla dayloo yàlla lan lay ragale ci gannaaw ba mu xamee ne lu mën a doon mbindaafun yàlla la yàlla bind am yàlla bind ñàkk yàlla bind asamaan ak suuf yàlla bind luy lor yàlla bind luy jëriñ kon fexeel ba jàpp ci yàlla mooma mooy ci yàlla doyloo yàlla boo tëddee nga daal di doon ko nelaw loolu mbokk mi ngi noonu mu bokk la ñuy jeexale suñu xutba la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jeexale ca mooy ay yéen mbokku soxna yu tedd yu baax yi xam leen ne day xeet bu mu mën a doon ñoo koy xamee ay soxnaam xeet bu la gën a baax ay soxna moo la gën a baax aw xeet yéen yéenay école bu jëkk ci école yi yéenay yar bu jëkk ci yar yi su ko defee nga la waay soxna yooyee jéem leen a baaxal seen bopp seen kemtalal kattan waaye njaboot gi yàlla di génn ci yéen jéem leen a baaxal yéen ci ñoom ñu nekk ay jaamu yàlla nga am doom buy jaamu yàlla wallahi moo gën doomu ministre ak doomu milliardaire su dee nag boolewu ca jaamu yàlla lu ngeen mën ci teete njaboot gi ngeen def ko dee leen toog ca la nga xam ne mooy seeni kër bu leen génn lu dul génn boo xam ne munta ñàkk su ngeen demee bay génn suturaal leen seen awra su ngeen demee bay génn moytu leen jaxasoog yeneen góor yu dul ah seeni borom kër lii day mbokk julit yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana leen dénkiit ngeen bari lool génn sarax ndax nee na bi mu bi ko yàlla wonee sawara jigéen ñi ñoo ko ëpp am ku ko laaj ne ko lu waral loolu mu ne da ngeen a bari suul njëkk ku ci nekk góor lu mu ko mën a defal bis bu amee problème ak moom ne ko musuma jëriñ dara te it da ngeen a bari di génne wax yu ñaaw ci seeni gémmiñ loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax na am góor dana def wax lu bon mais jigéen ñoo ko ëpp jigéen a ëpp lu muy jëw moo ëpp lu muy reetaan moo ëpp lu muy xaste loolu nag kon bokk na loo xam ne nii luñ koy mën a compenser mooy la yonent bi alayhi salaam doon wax bari leen di jéggulu seen borom bari leen di génn ay sarax daana leen wax ne dee leen baril zikrullah digal leen ci seeni baaraam yowmal qiyaama yàlla da leen laaj ci loolu waaye nag mbokk lii ma wax jigéen ñi yépp xam ne ni suñu borom nee na góor ñi ñooy taxawu jigéen ñi loolu moo tax ba yewit góor da ngaa war a ànd ak sa sa soxna ngeen dimbi leen te ci lu baax dimbi leen te ca tere lu bon njaboot googu ngeen séq ngeen bañ a jàpp ne ay xar la yu ñu yeew ci gétt gi xar moom moo yoyoo ñu koy jox mu lekk mu naan di sangu bal njaboot gi yàlla da leen koo jox ngir ñu nekk ay jaamu yàlla yéen ñaar ñépp ñu séq kër gi suñu borom danga leen taxawal yowmal qiyaama ku nekk mu làkk lan moo nekkoon sa responsabilité ci njaboot gi ma leen dénkoon lan moo nekkoon sa responsabilité ci lépp loo xam ne ñu ngi ko doon taxawee lii mbokk mooy la nga xamee ni nii moom la ñu war a bàyyi xel rawatina bis bu mel nii ñu ngi màggal suñu borom gën jaa bëri màggal ñu ngi koy màggal màggal gu amul app ñu ngi koy màggal màggal goo xam ne nii dana doon lu fees asamaan yi fees suuf ay yéen mbokk julit ñu ngi dellu nag la mujj mooy dellu ci suñu borom suñu borom boobu nga xam ne moom dong moo ñu bind moom dong mooy suñu yaakaar yàlla ñi ngi gëm ne amul kenn ko am lor wala njëriñ àdduna ak alaxira ku dul yow ñi ngi seede ne amul kenn koo xam ne yeyoo nañu jaamu ko ku dul yow ñi ngi seede ne amul kenn koo xam ne moo ñu gën a xam ku dul yow ñi ngi seede ne amul kenn koo xam ne danañu gën a yërëm ku dul yow ay yàlla yàlla nag ñu jéggal ci yërëm ñu yàlla yàlla nag ñu baal defal ñu tawfiq yàlla yàlla nag ñu may ak yombale lépp luy jur sa ngërëm yàlla nag ñu ko yombalal lépp luy jur sa mer yàlla na nga dox suñ diggante moom yàlla nag ñu musal ci ay cheytaan yàlla nag ñu musal ci ay yéefér yeeg naafiq yi yàlla nag ñu musal sunu ay bakkan yàlla na nga wàcce jàmm ci sunu kër yi yàlla na nga jubale borom kër yeeg seeni soxna jubale njaboot geeg seeni wayjur yàlla na nga jubale dëkkandoo yi yàlla na nga wàcce jàmm ci sunu réew yàlla na nga ko def réewum lislaam réew mi wommotu ci la nga xam ne muy say ndigal lépp loo xam ne shirka la ak bida ay yàlla yàlla na ñu ko génnal suñu réew mi yàlla na ñu ci indil naataange bu tax suñu doom yi man fee toog yàlla na ñu indil naataange boo xam ne danañu jàppal ñu man laa jaamu jaamu gu sell yàlla yow yaayur ak mucc yàlla na nga rafetal la nga xam ne mooy suñu mucc ay yàlla suñu waajur yi jiite woon ak mboolem koo xam ne jullit la bu jiitu ci kaw suuf yàlla yaa leen gën a xam yaa leen gën a peek yàlla na nga leen jéggal yàlla na nga leen yërëm yàlla nag ñu boole ak ñoom ci àjjana yi nga xam ne mooy yi gën a kawe yàlla sunu njaboot gi yàlla nag ñu ko def mu sedd suñu xol yàlla na nga leen teeti ila sirat mustaqim yàlla nañu doon ñu ñuy dàq jaamu yàlla gën ñu koo rafetle اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين